merci beaucoup chers amis téléspectateurs beneen émission Vox Art tey ma dalal koo xam ne phénomène la xale la boo xam ne mën naa ne perturbateur la donc ñëw na marqué empreinte am ci li nga xam ne moo di culture sénégalaise ñëw génnee beneen facette ñëw indi beneen touche kooku nag di ngeen ko gis ci kanam ñu waxtaan ak moom mais waxtaanu tey bi da doon waxtaan boo xam ne waxtaan bu sérieux la waxtaan boo xam ne dañ koy laaj ndax moom artiste la wala comédien la wala moom dafa ñëw pour changer leneen wala mu indi beneen touche kooku dinañ waxtaan ak moom ci lu bare bëri ale ñu xool sunu ndaanaan ki nga xam ne moom lañu invité tey. ale gis ngeen ko il se nomme toujours su mbay Mbaye Pawlish Mbaye di xale boo xam ne wax dëgg fa yàlla bi mu ñëwee integre ci aar bi yàggul waaye wax dëgg fa yàlla góor góorgóorlu na ba détourné li nga xam mooy sénégalais yi indi leen dugal leen ci beneen créneau danañu waxtaan ak moom ci créneau boobu nga xam ne moom la dugal sénégalais yi waxtaan ak moom ci li nga xam ne moo di musique walam culture walam art de toute façon dina waxtaan ak moom ci lu bëree bari Pawlish ci loone gërëm yàlla sant naa yàlla bu baax a baax euh, sant naa yow mi ma introsé ni introsé bi dalee ni euh, gëj naa koo gis ci ci ñuy introsé euh, sant naa kontaan naa trop nag bilaay kontaan naa. merci beaucoup wax naa ne ko léegi léegi jeune la wax dëgg fa yàlla gëm boppam ñëw mais Pawlish tey li ma la bëgg laaj. question réponse ñu waxtaan waxtaan bu sérieux parce que sénégalais ñoo bëgg a gis Pawlish Mbaye ñu waxtaan ak moom ci waxtaan bu sérieux boo xam ne ci wàllu culture la nañu waxtaan ci musique waxtaan ci lépp mais Pawlish tey yow lan nga woykat nga walam taasu walam walam comédien nga walam lan la kafkat laa dama bëgg a yàq aar bi yàq aar bi rek tax ma jóg pour yàq aar bi leneen tax maa yàq aar bi nga bëgg a yàq mais mais mais est-ce que Pawlish yow réellement mën nga yàq aar bi. maa ngi koy commencé yàq ni léegi man léegi soo télé di ma invité ñëpp di ma invité parce ne war a fi loo xam ne war a invité kon xam nga kon maa ngi maa ngi perturbé bi dëkk bi ñaar ñaar nit fi ñett ñetti star fi ne ci moment bi ñett ñaar ñetti star fi ne ci moment ok yéen li nga wax nii tey ñu gis ne ñëw nga sa premier single lan nga woyoon Feeraay lu tax nga woon feeraay parce que feeraay kenn joxu leen cër moo tax woy feeraay nga jóge foofu di woy ay ay mala ay ay jën ay yéet ay yabooy lu ne loolu loolu tamit foo ko teg parce que lépp ci environnement la ci environnement la te mënoo xëy te yeewu te lekkoo jën mhm. mënoo judd ba ko juddoo ba tey ay ngi lekk jën ñëpp a lekk jën jën dafa am solo paañ daa am solo moo tax il faut mu way loolu di leen di way ok tey wax nga ne kafkat nga danga ñëw pour yàq aar bi ba tey on comprend mais léegi man li ma li ma li ma gën li ma la bëgg a wax tey mooy mooy tey Pawlish mbay ci boppam euh, xaman yow kañ nga xamante ak Wally Seck ñu dugg ci loolu. loolu def na ay dix ans. 2010 ba 2020. yéen ñaar fan ngeen xamante may waxtu ci makan mu ne makan suñu borom may def ñaari nit ay bëgg-bëgg suñu makan mooy mm-hmm. makan kii kan la makan ne ko kii mooy Ablaye mbay mu ne ko kii dama ko bëgg te tax mu jox mu jox mu jox mu jox may entrée jox ñetti entrée Ndiogu Mbaye Ndiogu Mbaye woo ma ma waale jox na la entrée ñaari VIP non non ña VIP ñaari gel benn góor ñu ñetti VIP ma ñëw penc mi ànd ak sama xarit bu naan Petit Mara waaye dima may tuddee ma international mu ne ko damaa bëgg a changé sama mooy woowee Pawlish mbay lii lan la mi ngi jógee sama maam lii daw na yaram léegi loolu kaw mu wooy ma ci bëgg leen bëgg leen Pawlish laa la ku la neex mbay loolu di commencé daw bëgg mu nattare rek ci makkan muy waxtoon lañ xamante ne waxtoon ci makkan di war a football quart de xamante ni mu dimbali ma jàppale ma yóbbu ma Europe may ma teereewu may ma oto li nit li kilifa di am li kilifa di am yëpp may na ma ko léegi li kilifa di am yëpp may na la ko ci makkan ngeen xamante mu may la ay entrée may la kër may la oto yóbbu la Europe est-ce que kooku desal na la daal. te loolu lépp ñett la ñett la ñetti bii la wa may. mais ma ñetti kër mais ma ñetti bii la wa may. ma ñetti nit ñi am oto. kër Europe. xam nga loolu dafa tombé. lum la desal Waly lum la desal. lu ma desal ah <laughs> waaw xanaa ma dara mais léegi ñu gis loolu. ñu dem ba sa digganteeg Wally man xam naa ne parce que gis nañu sénégalais yu bëree bëri tey bu ñu gis ne loolu am na ñum dérangé parce que tey am na ñoo xam ne buñ buñ bëggee jot Wally sax dañ naan woo leen Pawlish pour xam fu Wally nekk loolu lan moo gën a dëgëral seen diggante lan moo gën a dëgëral. waaw mais parce que euh, ñi mu ñi ñi mu dérangé ma bàyyi ci loxo yàlla yàlla dina àtte yàllaay xool ko neex déjà mu def ak jaamam. maag waali mënuñoo bàyyante xanaa mu génn àdduna wala ma génn àdduna te boobu dina yéex kon ñaar ñooñu mënuñoo bàyyante bëgg xanaa xama bëgg bëgg dafa sax ci xol bëgg-bëgg la rek barki Seydouna Muhammad bëggoom la dama ko waxee mu xasan léegi ma laaj la benn question yow kañ nga gëj a dégganteeg waali mu ne carte téléphone wala téléphone ñu waxante dëgg rek ñoo barki Seydouna Muhammad samedi bi passé laa dem pénc ñi mu way ma loolu rëy dimanche ma demaat foog mu way ma Euh, baara mu ni vendredi teel a samedi vendredi yi passé mooy ma lu neex kon maa ngi moom xelam mi ngi ñëwaat ma ni sama xel ngi ñëwaat ku baax la. mais seen problème fan la jóge lan moo indi sa problème ak Wally. mais loolu loolu maa tooñ. nit bu tooñee kilifaam day xam ne moo tooñ kilifaam waaw xale ji xale moo ñëw fu bu am ma gis sama bopp succès jàpp ma ba fu bu am. waaye waali man dama koy tarbiyu ba am li ma am ci moom dama ko tarbiyu ku nekk ni ngay tarbiyoo sa sëriñ man dama koo tarbiyu parce que dama koo bëgg waali su ma saana naan ndox bu sànnee bi dama jël ndox mi naan ko pour nga xam ne bëgg la su ma lekk damay jël palaat bi lekkee ma lekk ko pour tarbi ko moo tax ñi ànd ñoom xanaa gisoo man li ma am ci moom kenn du ko aw ci moom parce que damaa tarbiyu gisoo sëriñ si ni tar ni tarbiyoo sëriñ ni tarbiyoo seen nongo daay ni tarbiyoo sëriñ si am na sëriñ yoo xam ne bu ñu lekkee raxasu sax day naan raxasu bi parce que loolu bëgg la te tarbiyu la tarbiyu mën na nekk ba ci jaaykatu paañ jaaykatu paañ tam nga ko tarbiyu li muy xoolee ba mën li muy xoolee lépp boo ko mënee après nga xam ne kii ni nga ko tarbiyu baax na dama koo tarbiyu ba nga koo tarbiyu bëgg gi ma ko bëgg ne Pawlish da naan kii may Pawlish loolu lépp ci la léegi tamit am na ñeneen ñu ma ne man nit ñee may wax ba léegi am na ñeneen ñu ma ne tey gis na ne Pawlish problème ak waali soxna Aydara mi ngi woon ci biir non non non non soxna Pawlish dem na ba do ba daawutoon tuddanteeg soxna ay dara te doon dem kër Waly non soxna sama yaay la munoo munoo munoo ba kii munoo ba ginaar ba ñu cuujam man loolu su ma ko defee dañ maa war a rey soxna ba ma nekkee Europe ma nekkee Europe dafa jugee fii Sénégal seet ba Italie ba muy ñibbi mu yëkkati 500 euros mu yëkkati 500 euros may ma barki Seydouna moo xam juróom ba dama doon jooy muy jooy barki salaatul fatiha dama doon jooy muy jooy barki Seydouna Muhammad billaay wallahi muy jooy may jooy loolu bëgg la sa capito loolu bëgg la. léegi comprendre na ok hmm. tey Wally tamit dégg naa Pawlish yow ci erreur nga dëkk parce que bi mu la yóbboo Italie pour nga toog liggéey nga jékki-jékki ñib si waat. waaw ah, parce que yàllaa yóbbu nit yàllaa indi nit yàllaa ma indi waat mënu ma ci dara yàllaa ma indi vidé ma fii suñu borom ma indi nit suñu borom ma yóbbu nit yàllaa ma indi waat moo ma yóbbu woon yàllaa ma indi waat suñu borom laay xool di ko neex mu def mën na maa yóbbuwaat rek ma toog yaa naa ko fa lekk mën mën naa nekkoon Europe dof fa wala ma nekk ci lu bon yàlla damaa ñibbi si man ma nekk ci lu baax nga nekk lu baax sant yàlla la. ok donc tey tey ñu gis nga ñëw dugg ci millier bi di ci def lépp tey Wally bi mu bi mu njëkkee déglu sa single wala mu dëkk njëkk a dégg yow ngay woyantu ñu lay invité lan la njëkk a wax. nit koo bëgg bu bu woyee neew soo danga koy bëgg wala wala ceebu keccax sa bëgg la doo doo doo xool doo xool ñàkk mën a waayam. parce que bëgg la bëgg moo di xanaa xaw bëgg dafa demee noonu bëgg mën ngay gis ñaanu ko suñu borom nit ku wéree di nekk ci nga bëgg ko ba doom sentiment ci moom di fanaan ak moom di lekk ak moom lu mu lekk doo sax doo xam lekk na lu da ngay ah, bëgg la bëgg moo demee noonu day waaye su ma woyoon karité sax da koy da koy neex parce que bëgg la am na yoo xam ne su ma woyoon yàpp du leen neex parce que bëgguñu ma suñu borom moo def loolu ku nekk bëgg la rek bëgg la rek suñu borom moo def loolu. léegi yow première guddi ba nga njëkk a jotee ak waale ngeen jote est-ce que guddi googu nelaw nga Pambis. mun munoo xuloo sa baay sa yaay ak sa tonto ak say nijaay di nelaw parce que koo bëgg nee na ñàkk koo bëgg dafa metti ñàkk koo bëgg dafa metti mais suñu borom yàlla def na ni ba nekkaat na ci jàmm alhamdulilahi rabbil alamin mais ñàkk koo bëgg dafa metti wala laa gën a bëgg sama àddina man ak sama maam ak sama benn père bu naan colonel Yaya ñett ñooñu laa gën a bëgg sama àddina Yaya maa ngi koy nuyu sama papa la sama xarit la sama kilifa la sama xarit la sama papa sama kilifa la ku baax la ku yërëm doomu adama la ku ma yërëm la man barke Seydou Naaw di di jàllale message Serigne Diop. tey tey bi nga. Serigne Diop yaa na ko yàlla defal jàmm ci dara yàlla na suñu borom bàyyi ak suñu papa ji Yaya xam ne ku baax la liggéey la xam wàcc dem këram yàlla na ko suñu borom bàyyi ak njabootam. ci darajaay Seydunaa Muhammad soxnaa mi yàlla la yàlla jubóole ci darajaay Seydunaa Muhammad papa yaay maa lay nuyu ci loolu. ok bu ma ñëwee sa problème seen problème bi aussi tey euh, est-ce que am na ci staff Wally wala ci entourage Wally kenn koo xam ne dox na ci jàmm. waaw parce que parce que bëri ko moom ah, bëri ko bëri ko bëri ay yàmba ñuy ñuy xëccoo benn saako lem ku nekk day bëgg lekk sa lem dootal yeneen kii. yeneen euh, yeneen kii ni sax yeneen yamb yi waaw mais mais day xool yamb ci ci gën a baax dina ñëw def ci àq wala ci àq parce que yamb la rek loolu loolu passé na sax parce que léegi ndeysaan dépassé na niveau boobu bu ci doxee bi jàmm yàlla def na ci jàmm bu ci doxul jàmm yàlla def na ci jàmm yàlla xool yi été naan jëboo na yàlla dafa baax mais yow tamit Pawlish yow tamit da ngay cokkaas parce que fan yee ñu gis la aussi nga ñëwaat wax ci sa naan ñi ànd ak wàll yëpp man man man Pawlish man la Sénégalais yi di tudd man maay boo duggee ci YouTube bi. ñu am ay ay vie ñoom ñun xam nañ loolu te ñoom nangu nañ loolu ñoo ñoo ñoo gën a xam loolu xam nañ loolu en fait. xam ne loolu mais samay mag fa nekk samay kilifa rek ñoo fa nekk ñëpp samay xarit lañ ñëpp samay xarit lañ parce que xelu xale dikkoon na mu mer boobu ba ñàkk loo ñàkk loo bëgg dafa metti te buudee di wax lu ne ñàkk loo bëgg dafa metti pour waa laa bëgg. barki salaatul fatiha ak ma suul sama ndey sama baay non du ma jooyee parce que lu séeréer la li ma jooy jooy naa ko bu yàgg waaye rek laa bëgg man man mënuma bëgg beneen ci àddina lu sama maam ak sama yaay ak papa ak waali won na Seydunaa Muhammad billaay waal laa gën a bëgg sama àddina cofeel la mënu ma koo maîtriser ci lenn suy kaf damay kontaan suy way damay kontaan su meree damay kontaan xam nga loolu bëgg la tey. tamit di jàllale message sama papa Amady. Mhm. Amady Badiane. bu ñëpp meloon ni moom bu ñëpp meloon ni moom Amady bu ñëpp meloon ni moom góob kenn amul problème mu waale. Mhm. day defar bu lu bon da koy defar lu baax da koy defar lu tànkam lu kenn lu ko waaye nit woo mu ñëw ci lu ko barke Seydunaa Muhammad lu ko waaye woo ci àdduna day ñëw. Coumba di yàlla na ko yàlla defal jàmm tamit di di di jàllale message sama papa jàppale na Wally jàppale na ñun ñi nit nit day ànd nit ndax dara àndaloon nit Wally ndax dara parce que rakkam rakkam la dakaa bëgg te yàlla te xam nga li gën a neex di ànd nit ki jiitu bëgg bi jiitu ba alal ba pardon ba alal. léegi léegi aussi ñu gis ne Pawlish mbay donc bi mu ñëwee pour mu am buzz ñëpp ne nañ da ngaa cherché Ouzin Keita ñi naan Pawlish mbay wéerul moom ak Ouzin ñooyam ay dof lanu mais Pawlish dofoo jinne jàpp la dara jotu la mais lan moo tax yow nga dugg ci créneau boobu. waaw parce que xam nga yàllaay jaarale ci doomu aadama nit fu mu tàkkee tàkkoon naa mhm. Ouzin damaa gën a taal. parce que nit du soxor nit kon Ouzin moo la may bëgg. Ouzin damaa dimbali. damaa xeex ak moom affaire bi ba nii nii nii ba nii nii nii nii nii nii ma gën a taal. barke Seydouna Muhammad billaa wallahi ba ba nii nii nii nii nii suñu borom suñu borom moo def li ma gën a tàkkane barke salaatul fatiha loolu sant yàlla tamit maa maa ngi koy dimbali gis naa taximaan bi <laughs> ah, la gëm taxi dof la xam naa ne dafa amul xam naa ne dafa amul kii versement ñu heure bi taximaan yi dañuy tiit parce que seen day ñàkk versement eh. day fu fu loo boo nuyoo sax ñu tone versement nga leen di jox yaa naan yàlla may versement heure bi dañuy nga ñëw indi single bu bees Pawlish Mbaye rek jantal Pawlish Mbaye dafa jantal. waaw loolu tamit loolu dama ci soo waxaale parce que nit ñu xamuñu sama taay. man taay Dubaay laa yor gàtt ma njoolu ma. <laughs> lan mooy taay Dubaay. mooy gàtt njoolu mooy taay Dubaay gàtt ma njoolu ma tey mënoo maa ci leen damaa njool wala damaa gàtt parce que taay taay taay Dubaay la ki la ci bokk Seck. Seck sa gaan la Seck. Ah. xam nga ni ki moy sekk daanaan xale circulé. donc sekk ndaanaan moom lu tax lu tax ma koy indi mooy kii dafa nekk koo xam ne xale bu am jom la di nekk xale boo xam ne mu ngi wër ci dëkk bi di jaay tuddee boppam sekk ndaanaan xale circulé sénégalais yëpp na xale yi jigéenu ndakaaru njaay ak ñëpp muy l'habilleur de stars sekk waxtaan nañu ak Pawlish Mbaye léegi lan nga ma mën a wax ci gàttal rek ci pawlis Mbaye non Pawlish moom sama xarit la Pawlish man ak moom yàgg na bi mu bi mu bi mu nekkul dara man ak moom ak moom la sa sama xarit la te dara du tax ba ma bàyyi ko. waaw man sama lépp la. parce que léeg-léeg sax nit ñi dañ may wax yow Pawlish Pawlish ma ne leen Pawlish dama koo bëgg. parce que man ak moom dañoo yàgg. mu nekk am jom parce que koor man koor laa jàppee nit ku bëgg fameem koor bu jotee day jënd lépp yóbbu ko dëkk ba. yóbbu ko yaayam. barki Seydina Muhammad te ba ma ñëwee ba tey mosuma gis ci yor cigarette. jaakar bu mos a jaay ñetti ñetti yére rek commencé ngaa jënd cigarette. commencé tatoué yaram bi te loolu da lay perte musuma gis mu def yëf yi perte hmm. yooyu ful na la yàlla jàppale yàlla bàyyi la sa xarit Kara si darajaay Seydina Muhammad sa liggéey bi nga nga raw raw nga ñëpp sax mais a raw ñëpp lu tax nga tuddee sa bopp sekk naanaan xale Ciré doomu nday Wally Ballago Seck parce que parce que man daanaan laa Pawlish moom xam na ne man daanaan laa ku ma xam dina xam ne man daanaan laa te Wally man itam dama ko bëgg te yàlla tax bëggeewu ma ko pour dara bëggee ma ko pour lenn dama ko bëgg te yàlla tax parce dañuy wax naan woykat yi bari nañ mais man dafa mel ni yàlla yàlla dafa ma nattoo waali dama koo bëgg daan ba ma nekkee xale mujj gi dem nañ ba Ouest Foire liñ ma daan wooyee waali lañ ma daan wooyee ba wes ba mu ngi dëkk ci tali te tali bi ñu naan wax tali waali nag lañ ma daan wax mujj gi gars yi booba man maa ngi jaay ay baa gars yi di ma wax waali ba léegi sax am na ñoo xam ne nii dañ may wax waali xamuñu samatur tur ñu bari xamuñu ko waaw moo tax mujj gi ma dem ba si yàgg ma bind sekk ndaanaan bi ma bindee sekk ndaanaan mujj gi laa toog ba si yàgg ma xelaataat sama xel ma ne xale circulé ñu ne ma lan mooy circulé ma ne leen circulé mooy loo xam ne du toog day taxawaalu rek waaw fu ko neex dam alo waaw Pawlish tey ñi ngi ñëwoon ak Pawlish Mbaye ci seen émission Vox Art boo amee message booy lancé ban message message bu lancé mooy euh, Sénégal am jàmm aar bi may def nii intention ma ci jël yan na am mu yàq ko ma tax a jóg intention intention boobu laa booy moo tax xanaa xamoo xale yi maa may fit waykat yu ndaw yi maa may fit ñëpp ay way ku tudd da ngay way te man xam naa ne man li may way amul solo man way bi man damay kaf dama ko bëgg a yàq mais ñoom dañu ko jëlee dëggantaan njaay di uhuh. way yi manqué te ñoo xam rek dama leen yërëm daal yal na yàlla suturaal waykatu ndaw yi nag yal na yàlla suturaal. mais Pawlish tamit doful dina jàpp ko dara jotu ko. ah <laughs> <laughs> dof dina am gel <laughs> dof dof yow dina fóonante. ñaata gel nga man bëri naa gel de. Hmm. waaw ban message aussi ngay lancé xale yu jigéen ñi nga xam ne ñu ngi farantu yàq seen ndaw di def naka su dul noonu lan nga leen di wax te yow génne nga si nga naan lu ma gëj a gis ndaw jële ko ci meer Njaay to tooñati nga meer Njaay bi. bi moo xoolal xam nga ñoom xale jigéen yedd naa leen fu ne. yeddee naa leen fu ne. 31 décembre bi yedd naa leen nee naa leen ku seeti safar na nga kuusu. waaw wala nga wax wala nga wala nga wax da ngaa indisposé. jël na naa waaye am na xale yu góor yu sa xale yu góor yu salte ñoom faa ñu indisposé ñoom ñoom daana leen gënal visa senjeng ñoo gën a caga bay am na te am xale yu góor xam ñoo gën a caga non mais mais mais c'est jamais fii faale ñu indisposé faale ñu fibrom faalo ñu ABCD gisoo moo tax lii ba bëri hépatite eh, bëri am na xale jigéen xale góor yoo xam la waxee ah seen gémmiñ yéen a tiwo rigol bu xasaw nag ku la ñuy fóonanteel fu ne la ñuy fóonanteel xale jigéen ñi ngir xale jigéen ñi dama leen di yedd dama leen di yedd il faut vigilant il faut dans la veille il faut être vigilant bàyyi leen xale yu góor ñu bëri dañoo am feebar ñu am ñu bëri dañoo am feebar boo leen seetee seen far léegi boo boo demul tey seen bopp ngeen ngeen kuusu ne on indisposé parce que am na xale yu góor yu bëgg indisposé nga leen nga nga teel a nga leen damaa kii kii damaa kii nu sax damaa am kii feer bi kii. déedéet non non kii avancé daal li topp. waaye yow li kii. wala wala dafa hépatique B wala dafa hémodialysé. hémodialysé. waaw hémodialysé. <laughs> bu ñu xool hémodialysé nga ne hépatique B. bu ñu xool hépatique B ngeen bàyyi. ok ok. ay cagalañ cagalañ cagalañ. merci beaucoup gis ngeen moom mooy Pawlish Mbaye Pawlish Mbaye dañ ko jëloon rek juste pour waxtaan ak moom ci lu bëree bëri waxtaan ak moom ci carrière musicale am waxtaan ak moom digganteem ak Wally Ballago Seck ndax bu lëg lekkee olom na koy gërëmee cooy. Pawlish Mbaye dama ko xam bu baax muy nit koo xam ne tey li mu wax nit ku sincère la boo daggee xolam waali nga ciy fekk ak famille waa kër waali ba tey dama dañuy daje kër Thione Seck mu ñëw di kafanteeg ñoom di foog ñoom di ree ak ñoom muy nit ku sincère ku bëgg waali doful jinne jàpp ko dafa ñëw rek pour apporter benn touche boo xam ne mooy ci wàllu musique di kaf di foo di ree dindi stress waxtaan ak sénégalais ak yeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu koy gërëm di ko sant di gërëm nag sunu xarit yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan à travers Equivox TV lan ngay wax Equivox TV. waaw Equivox TV yaa nekk box. Equivox <laughs> yaa nekk box ku mu ray la. allez Equivox ku mu dajal lay la Pawlish moo ko wax ciao à la prochaine fois ci Vox Art merci beaucoup ciao.